la la. dañu pour commencer teen bi la euh, premier jour Ramadan maanaam premier jour weeru koor ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko financé mu nekk benn association boo xam ne ñi ngi nekk France seen yéenewul moo nekkoon euh, ñu commencé ko ci jour weeru koor alhamdulilah mi ngi nii tàmbali nañ ko tey ren man xamatuma exactement ñaata la ñu financé ci ay mais bari na. jubli jubluwaay bi moom mooy lan pour jàppale population bi kese soo xoolee seen association bi lu mu tudd sax moo na ne ñi seen yitte mooy naka lañ def ba nit ñi nekk ci ja maanaam nekk ci dal nekk ci dund boo xam ne dund bu bu jàppandi lay doon. loolu moo tax ñu sawar loolu ci génne seen xaalis di ko defal ay nit yoo xam ne ñoom xamuñu leen ñoo xam ne duñ fi mës sa ñëw naan mais ñu xam ne nit ñi defal na leen dara loo xam ne ne leen jëmbale rek daf leen di daf di kontaan loo loolu moo tax ñu ñëw tey pour filmer affaire bi aussi tam yéen ngeen wax ak ñoom. soxla ñu ndox trop trop trop trop ndax ndoxu forage bi neexul kenn mënu koo naan kon nag su nga ñëwee indi ñu teen euh, amuñu daal lu nga lu ñuy wax lu dul leen. gërëm leen jërë ngeen jëf def ngeen lu baax waaw ñi ko def nag yal na leen yàlla yokk yal na leen yàlla yokk jërë ngeen jëf maay maay chef de bi mbaan ngeen def lu am solo la ndax lu ñu yitteel la ci jamono boobu bi nga xam ne ci la ñu nekk ci koor gi booy xool teen bii dafa ngàcc ñëpp a ngi rot amuñ ci lu ndox dëkk bi aussi noonu kon bu luy ñëwee tey jii si mbaan lu ñuy rafetlu lay doon liñ ci gën a kii ne mooy ñaan rek yal na bur yàlla yokk association bi baax a baax lépp lu ngeen si def muy koom yal na delluwaat ci yéen yàlla fay leen ko muy fi muy fene eh, yàlla dimbal leen aussi seen wergu yaram dimbali seen i njaboot eh, jàpp na seen taxawaay baax a baax a baax lépp lu ngeen yootu yàlla jot ci jotu leen ko si ni mu gën a gaaw incha allah eh, yii dañ ko yitewoo baax a baax partout liñ ci ko man ken xamul nu mu toll ndax dëkk yi yëpp tund yëpp ay ay kii ay kii la ay dëkk la ñoo xam ne ñëpp fii la ñuy roste ndax fii dafa am ndox mu neex booy xool moo boo gisee ñu problème chaque jour dëkk yi dañuy takk ay sart dañuy di root si ndax booy xool ñaar ñaar teen a nga fële day jeex bii teen la day jeex te te kaw toolu jàmbur am na bu nekk day jeex ak yeneen te teewul vraiment bu ñu amoon di sax ñu jël ko ndax vraiment suñuy soxla la doo mën a mënut a dund ndox mënut a dund sans ndox robinet agsi na fi waaye booy xool robinet mënoo mënoo koo naan te xam nga affaire machine moom dafay paan waaye li nga xam ne naturel la moom daanaka vraiment bu gën gënoon bëri gën a baax. bu gën a bëri gën a baax ndax du doy moment bi ñu ni nii si koor gi ñu ni. nii ku ci war ba ngoon jot amoo ndox vraiment da ngay da ngay sonn te jigéen ñi bëri lool ñëw nañ ci root amuñu ndox dañoo delluwaat yàlla xam lool kon loolu jafe-jafe la boo xam ne doy waar donc toujours avec notre partenaire euh, au Pain Sourire donc là on est dans le village de Patarsine donc pour. Euh inspecter un petit peu les travaux. On voit que ça avance bien, on est à 2 mètres de profondeur pour une euh, profondeur. Euh, la nappe est estimée à 10 mètres. On est le premier Ramadan, donc euh, on ose espérer que là, au plus tard dans la deuxième quinzaine de Ramadan, ces populations, Inch'Allah, pourront couper leur jeûne avec l'eau de ces puits, Inch'Allah. Parce que c'est fort possible, parce qu'ils y vont à fond, tout le village est là. Et ils font ça pas pour euh, eux, seulement, mais ils le font aussi pour les autres villageois parce qu'ils nous disent qu'il y a plein de villages tout autour qui, viendront en, bénéficier, Inch'Allah. Donc euh, on demande à Allah qu'il bénisse ce, partenariat, qu'il bénisse aussi tous ces donateurs de Au Pain Sourire et qu'ils mettent la baraka dans leurs biens et leurs familles. On est, on venu là, là on est quand même, je crois qu'on n'est pas loin des 45 degrés, voire plus ce qui explique un peu qu'on n'a pas trouvé euh, la population, en tout cas féminine et les enfants. C'est très très dur, même pour nous. On commence à souffrir un petit peu. Et imaginez en tout cas cette souffrance-là, gêner sous cette souffrance et ne pas avoir de l'eau pour couper son gène, pour s'abreuver, je dirais. Parce que quand même, euh, ça doit être très difficile. Nous, on ne l'a pas vécu, donc euh, on remercie Allah pour, pour ça. Mais on peut essayer de se mettre à leur place quand on vit cette soif qu'on vit actuellement sous cette chaleur ardente. Donc euh, je pense que ce projet vient en tout cas au bon moment pour soulager ces populations pendant le, pendant le ramadan.